an saxaabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala xawla wala quwwata illa billahi al-aliyi al-azim mbokk yu tedd yi ñu di nuyu di sàkku ci ñaan di dëñdoo di dëñtalu ci suñu kattan ci suñu pexe jox suñu bopp yàlla subhaanahu wa ñuy ànd ak yéen soobu ci téere bu siiw bi ñuy tuddee matnul axbar yi nga xam ni tuuti na ci jëmm waaye boole na masail fiqhiya yu bari rawatina ci wàllu julli ki ko taalif nag cheikh alxaqari rahmatullahi aley bokk na ci kéemtaani jamonoom téere bi bokk na ci téere yi gën tuuti ci yem taalif taalif na daana ci daanaka ci fànn gu ne xam ci naxwu la xam nga noose na ajrum taalif na ci moo bind téere bu siiw boobu ñuy wax al euh, sullamul munawraq ci ilmul mantiq doon koo xam ne jaamukatu yàlla la woon ndax daf daan jaamu yàlla guddi gi bëccëg gi mu yendoo jàngale léeg-léeg sax mu def retraite dem ci euh, retraite dem ci doj yi am na téeréem sax yu mu bindee foofu wax nañ ne bi mu faatoo ci la ne nañ ko suul ci barab bi mu juddoo fi ay way juróom nekk ak i mbokkam te ñoom ñëpp di famille xam-xam dafa xawoon sori ak fi mu faatoo ba am ñu nga xam ne dañu bëggoon suul ko rek wala ñu yàgg foofu matal leen dénkaaneem am ñu dëggu ci taalibeem nag ne foog ñu yóbbu ko ba mu yegg ci fi mu dénkaane ñu ne yàllaate kéemaan am ci mooy ñi dëppoon di ñibbi ñii nga xam ne ñoo bëggoon a woyoon dénkaane bi sëriñ bi dénkaane yàlla taxañal na leen yoon ba ñu dem kilomètre yu sori yooyu suul góor gi dëppaat njëkk fa ñi nga xam ne ñoom ñoo dëppoon loolu bokk na ci kéemaan yiñ koy limal téere bi nag lu tax ñu tuddee ko muxtasar mooy dafa tënk kon introduction bi sax tënk lay nekk mu mel ni nag dina ngay gis euh, ñi nga xam ne seen xam-xam dañ ko tënk ci benn idéologie tax ñuy saaga euh, njàngale yi mag ñu mel ni cheikh alxadariyu wala cheikh euh, ibn abi zeyd al qayrawani wala borom al muqaddima al iziya wala cheikh xalil borom muxtasar defee na rek ñii dañu teg seen njàngale ci bakkan waaye boo seetantalee di nga gis ni ay manuel classique la ñu tënk ba indiwuñu tegtal waaye tegtal yi yëpp di ko gis mu am cosaan ci ngiru imam malik waaye di nga gis ni tegtal yi dina am cosaan ci alxuraan ak sunna yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa moo tax góor gu baax ca mali def ci benn sharxa nga xam ne dinañ ci sukkandiku muy xallul masail euh, te li ko ci xiir mooy li mu gis ci ñi xóot la ñi xóot gémmiñ te dog la jottaliko bi ñu jottaliko daruñu euh, baax ñi leen mu bind ci nag téere tuddee ko xallul masail yi fi sharxi muxtasari alaxdari biddalaili muy alxaajo eh, saad ibn omar ibn said jalaya ture alfuuti nekk ca Ségou ci république bu Mali di boroom xam-xam bu mag yal nañu ko yàlla eh, boole fayal ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi sahbihi wa sallama moom mooy directeur wu almadrasa al islamiya bu ñuy tuddee sabilul balax moom ngi matal téere bi nee na le 24 mai 1971 ci la matal sarxa bi mu sarxa Laxdari yu sarxa bu rafet te tënk euh, dalaayil nga xam ni moom la borom Laxdari yu sukkandikoo ci alquran ak ci sunna loolu mi ngi tomboog bésu altine ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci rabiul awal bismillahi arrahmani arrahim qaala cheikhu rahmatullah alayhi baada albasmalati walsalaati walsalaami ala nabiyi rahmati wa alihi wa sahbihi alkiram albarara gannaaw bu sëriñ bi eh, ubbee téere bi tudd yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dana wax ne lépp lu ñuy ubbi te ubbee wuñ ko turu yàlla loolu lu ñàkk barke la mu teg ca sant yàlla ndax euh, sant ñu ne alhamdu juróomi baat la boo ko defee mel na ni am nga yoolu juróomi julli yëpp moo ne lillaahi muy ñetti baat nga teg ko ci muy alhamdulillahi ubbi juróom ñetti bunti aljana yi yëpp alhamdulillah moo gën ci ñaani yi ni ko yonentu waxee sallallahu wa sallam ndax ñaan mën naa am charte bu dajeewoon ñu bañ koo nangu waaye alhamdulilah moom fu mu jibee sama borom nangu ko ndax wax na ci surat ibrahima ne la in chakartum la azidannakum in kafartum mu teg ci julli ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay ñooñam ak i saxaabaam te julli ci yonantu nag Cheikh Tidiane dana wax ne bunt buñ jaaree ci nitu yàlla yi dem ci borom bi gisatuñ ko mooy gisatuñ nit ku mat euh, sëriñ doonte mi ngi fi waaye gisuñ ko boobu nit ki jàppee ci farataal ak nabi yàlla dana ci jaaree ba ubbil ko buntam mu ne awwalu maa yajibu alal mukallafi tasxiixu imaanihi li njëkk war ci mukallaf bi mu ne mooy mu wéral ngëmam ana kuy mukallaf mukallaf mooy koo xam ne xelam jot naa mat gannaaw xelam jota euh, xelam jot naa mat am na luñ ko togg ana luy xel mu jot mat mooy jot na ak mët ba mën a dégg ràññe xàmme lu baax attenko def ak lu bon attan koo bàyyi xel mu mat nag gannaaw xel duñ ko gis sharia daf ko wutal ay màndarga màndarga bokk na ca sax karaw wa kullu taklifin sharti al aqli maa al buluugi bi damin aw xamli aw bi maniyin aw bi imbaati shaar aw bi thamaani ashratin xawlan waxar loolu la borom ibnu ashir wax sax karaw naq wala karaw yi poqtaan màndarga la ci ne borom mat na mu kalaf jigéen ju gis mbaax màndarga la ci ne mat na mu kalaf ëmb màndarga la ci ne mat na mu kalaf bu fekkee ne yooyu amul am fukki at ak juróom-ñett ci waxi ñenn wala fukki at ak juróom màndarga la ci ne mat na mu kalaf matee mukallaf nag foofu dañ ko toggee jëf liñ toggoon baayam togg ko yaayam togg ko képp koo xam ne eh, mukallaf la ci ñu ko jiitu anam lan lañ ko jëkk togg mu ne tasixeexu imaani yi mu wéral ngëmam nan la ñuy wéralee suñ gëm mooy fexe ba xam yàlla xam ay yonantam xam jële ci yàlla ko yonantam sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi ana luy gëm gëm mooy dëggal lépp loo xam ne yonantu sallallahu alayhi indi na ko lépp loo xam ne yonantu wax na ne yàlla ko ko wax rek nga gëm ko danañ tënk sax ponki ngëm ci juróom benn bu njëkk bu mooy gëm yàlla gëm ay yonantam gëm malaaka yi gëm ay téereem gëm bés gëm dogal bu neex ba ak bu naqadi ba yooyu lañuy ñuy tënkee ngëm muy ponki ngëm yi juróom benn gëm yàlla xam nga mënoo ko gëm te xamoo ko xam ngi mooy lay yi nga xam ne moo nekk ci kaw na bi lay yi nga xam ne moom la la alquran indi nga jaaree ci ba xam kan yàlla xam li nga xam ne moo nécessaire te ñu koy tuddee alwaajibaatu fi xaqillaahi taala ak li nga xam ne dafa impossible ñu koy tuddee almustahil fi xaqillaahi tabaraka wa taala ak yi nga xam ne dafa dagan mooy bu neexee sama borom moo am bu ko naqadee du am subhanahu wa ñu lim nag ñaar fukki yëf ci yi nga xam ne moo war ci xaq yàlla subhanahu wa taala bu njëkk bi mooy ak am al wujud yàlla wax na ci surat ibrahim awillahi shakkun fatiri samawati wal ard badiu samawati wal ard anna yakun lahu waladun wa lam takun lahu saaxiba wa xalaqa kulla shayin wa huwa bi kulli shayin alim dalikum allahu rabbukum la ilaha illa hu xaaliqu kulli shayin faabuduhu wa huwa ala kulli shayin ni mu ñëwee ci suurat lanaa bi ci topp mooy alqidam mooy yàlla naka jekk mi ngi fi yàlla dana wax ci suuratul xadiid huwa alawalu walaaxiru walzaahiru walbaatinu wa huwa bi kulli shay'in alim bi ci topp mooy albaqaaw yàlla dafay des ba sow ba foog du fi jóg mukk wax na ci suuratu rahmaan kullu man alayha faanin wa yabqaa wajhu rabbika dul jalaali wal ikraam bi ci topp mooy almuxaalafatu lil xawaadisi yàlla wutee gi mu wutee ak way sosu yëpp képp kuy mbindeef rek yàlla wutee nag moom subhaanahu wa taala yàlla wax na ne laysa kamithli shay'un wa huwa as-sami'u al-basir bi ci topp mooy qiyaamuhu taala bi nafsihi yàlla subhaanahu wa taala xajuwut place bu ko xenu wala jamono ju nga ne moo koy wër moo bind bërëb bind jamono subhaanahu wa taala yaa ayuha nnaasu antum alfuqaraau ila allah wallahu huwa alganiyu lhamid doylu na walis ku dul moom subhaanahu wa taala bi ci topp mooy alwaxdaaniya kenn la ci jëmmam kenn la ci meloom kenn la ci jëfam law kaana fihima aayaatun illa allah la fasadata subhaanallahi rabbil arshi ammaa yasifuun ni mu ko jàngale ci suratul anbiyaa wa ilaahukum ilaahun waaxidun laa ilaaha illaa huwa arrahmaanu rahim suratul baqara bi ci topp mooy ak qudratul aamatu kattan nga xamul fu mu yem yusabbihu lillahi ma fi samaawaati wa ma fi l-ard lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir bi ci topp mooy al iraadatul aamatu namm namm nga xamul fu mu yem innahu yubdi'u wa yu'iid wa huwa al-ghafuurul waduud zul arshil majiid fa'aalun limaa yuriid rabbuka yaxluqu maa yashaa'u wa yaxtaaru bu ci topp mooy xam-xam bu amul fu mu yem yaalamu maa fi samaawaati wal ard wa yaalamu maa tusiruuna wa maa tuclinuun wallahu alimun bi daati sudur wallahu alimun bi daati sudur wallahu bi kulli cheyin alim bi ci topp mooy dund goo xam ne amul fu mu commencé amul fu mu yem allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayum laa taaxuduhu sinatun wala nawm wa tawakkal ala alxayi alladi laa yamuut sabbix bi xamdi bi ci topp mooy dégg ak gis laa taxaafa innani maakuma asmau wa ara inna allaha samiun basir laa tudrikuhu labsaaru wa huwa yudriku labsaara wa huwa latifu xabir bi ci topp mooy wax wa kallama allahu muusa takliman bi ci topp mooy ñu xam ne yàlla aji am kàttan la aji namm la aji xam la aji dund la aji dégg la aji gis la aji wax la subhaanahu wa taala ñaar fukki yi ñu wax na mooy jomb ci àqu yàlla subhaanahu wa njëkk mooy alaadam ñàkk yàlla dafa am te am dafa dàqob ñàkk soso dafa dàqob jiitu jeex dafa dàqoanteeg des xemoo wala niroog mi defi dafa dàqoanteeg wuuteeg ñoom xajo jëm ci barab walla lu koy e, e, def taxsiis moom yàlla subhanahu wa taala dàquwante na ak e, li nga xam ne moom mooy subhanahu wa taala ak doy loon wali lu moom subhanahu wa li mu ci jëm wala ci melo walla ci ay jëf subhanahu wa taala loolu dafay dàquwante kennam lot dafay dàqwante kàttanam gi subhaanahu wa taala ak ci biir dara am te fekk du namm nammam la dafay dàqwante gi réer ak lépp lu ne ci maanaam réer dafay dàqwante xam-xamam dee dafay dàqwante dund tëx dafay dàqwante dégg gumba dafay dàqwante gis lu dafay dàqwante ak wax waxam nag subhaanahu wa du xaram subhaanahu wa taala yàlla lottut duwut ku ñuy forcé réerut taxut du dee gumbawut subhaanahu wa li daga nag ci xaqam mooy amuk mbindeefi rek lu ko ci neex amal lu ci neex du am subhaanahu wa taala gëm mooy nga gëm ne yàlla bind na ay mbindeef mu teral bind leen ci leer duñ lekk duñ naan duñ nelaw duñ sëy duñ mooy yàlla lim leen digal rek la ñuy def duñ mos a defit lim leen tere subhaanahu wa taala yàlla tudd na leen ci alquran ci barab yu faccanti ko wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil axir faqad dalla dalalan baida wa id qaala rabbuka lilmalaikati inni jaacilun fi l ardi xalifa qaalu atajcalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa naxnu nusabixu bixamdika wa nuqaddisu laka qaala inni aalamu maa laa taalamuun yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee bu nekk juróom-ñaar fukki junne ñoo cay dugg te duñ dellu cosaan laan ci say xayin yonentu sallallahu na ci yu indi mooy gëm yi yi asamaan mooy téere yi nga xam ne wax na leen ci xadis alquran it tudd ay téere ne yàlla moo leen lu mel ni tawraat lu mel ni linjil lu mel ni zabur ak alquran ak yi ñu wàccee woon ci sayidna chiis ak idris sayidna idris sayidna ibrahim ak ja topp nag ci moom lañ wàccee tawraat sayidna isa ci moom lañ li linjil sayidna daawud ci lañ wàccee woon zabur alquran nag moo ñëw tënk leen boole leen fali leen ñoom ñëpp te moom rek it moo des bu dul alxuraan rek loxo ne dugg na ca waaye alxuraan yàllaa ko wutal boppam innaa nahnu nazzalna dikra wa innaa lahu la xaafizuun ngëm téere yooyu ne ci yàlla lañ jógee dafa bokk ci fonki ngëm yaa ayuha alladina amanu aminu billahi wa rasulihi walkitaabi alladi nazzala ala rasulihi walkitaabi alladi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmi al axiri faqad dalla dalalan baida nazala alayka alkitaaba bilxaq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala altawrata wal injila min qabl hudan linnaasi wa anzala alfurqaana kon gëm téere yi bokk na ci ponki ngëm gëmit yonent yi alayhim salaatu wassalaam la ko dalee ca maam aadama da ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam amul wenn xeet wu mosa wéy loolu ne yàlla yónnee ñoom ak yonent wa laqad baasna fi kulli ummatin rasulan an ubudu llaha wajtanibu taaxuuta fa minhum man hada llah wa minhum man xaqat alayhi wa minhum man xaqat alayhi dalaala inna awxaynaa ilayka kama awxaynaa ila nuuxin wannabiyiina min bacdihi wa awxaynaa ila aali ibrahim wa ismaila wa isxaaqa wa yaquuba walasbaab wa ciisa wa ayuba wa yunusa wa haaruuna wa suleymaan wa aataynaa daawuda zabuuran wa rusulan qad qasasnaahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsusum alayka وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما li xikmatu ci mu yónni leen mooy kenn bañaam lay ne xaw ma li yàlla bëggoon yàlla yónni na ci xeet yépp ab yonant ngir muy jàngal leen la yàlla bëgg ba yowmal qiyaamati kenn du am lay ki leen tëj nag te gën ci ñoom mooy yonant bi sallallahu alayhi wa sallam maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa xaatiman nabiyin lii tegtale ne moo leen gën bari ci alxuraan wala na ci xadis abu hurayrata dana nettali xadis joo xam ne mi ngi muslim ak tirmidi yonentu ne sallallahu alayhi juróom benn yi maa yi mooy wax nañ jox nañ ma jawaamiul kalim di wax ci téeméeri baat wala ci junne baat dina ko wax rek ci benn jumla moom mu sotti wa nusirtu bi rox bi waaw yàlla it jox na ma rox bu mooy samay noon Euh, ñemewuñ ma fu ma jëm balaa maa yegg fekk euh, yàlla dugal na ci seen xol ak ragal ba daanaka du tax du jaar may xeex ak ñooña dagal nañ ma yi tamit ay màng bu njëkk yonent yi dagal nañ loon ci ñoom bu ñu xeexee jël màng euh, bi ci des mooy suuf yëpp defal nañ ma ko muy jàkk fu nit nekk ak bu ko julli fekkee mën na faa julli te ñu njëkk ñi dañ leen defaloon ay barab yu xam pour ñu cee jullee defal nañ ma suuf si yëpp yëpp it mu laab bi ci des mooy yónni nañ ma ma jëm ci ñëpp te bu njëkk yonentu buñ mos a yónni dañ ko yónni ci benn jamono yónni ko ci aw nit yonentu nag moom la yàlla yónni ci ñëpp yónni ko ba euh, faw yónni ko euh, fépp sallallahu alayhi wa bi ci des mu ne waxutima bi yan nabi woon ci man la yàlla tëjee yonentu yi alayhim salaatu wassalaam kon mu war ci euh, jullit bi nga xam ne mat na mu kallaf mu xam yonent yi te gëm leen yonent yi nag eh, ñett moo wax ci ñoom bu njëkk bi eh, mooy dëggu eh, ndax bu ñu dëggul woon yàlla du leen dëgërale ay mujisa subhanahu wa taala te bu ñu dëggul woon te yàlla wax na ne lu ñu wax maa ko wax bu ñu waxee leen lu dul dëgg dafay mel ni suñu borom moom moom la moom la ah, nar wade askan wi jëm ci moom te loolu jëmm na ci xaqam subhanahu wa ci des mooy al amaana ak tabdiix mooy li leen yàlla jox ne dañ ko jotale muy tabliix danañ ko jotale duñ ca ragal dara ak amaana it mooy lépp loo xam ne ni ak wóor la ak kóolite la ak kóllëre ñoo ko ëppale ñëpp alayhim salaatu wassalaam loolu tax yàlla ne ñu nañ leen topp waatiu llah waatiu rasul wa ma ataakum rasul fa xuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuha ñett jikko yi ñu tudd nag seeni safaan euh, jomb na ci képp koo xam ne ab yonantu la muy fen ab yonantu du fen mukk euh, jomb na it ci ñoom ñuy euh, xuruj ab yonantu du xor du xuruj mukk jomb na ci ñoom it ñuy nëbbu dara ci li leen yàlla yónni alayhimu salaatu wassalaam li nga xam ne nag dagal na ci ñoom mooy lu lu mën a nekk la mooy li nga xam ne dana wàcc ci képp kuy mbindeef lu mel ni feebar lu mel ni lekk lu mel ni naan lu mel ni nelaw lu mel ni dem ci marché yi lu mel ni ñu rey leen baa ñu gaañ leen wa ak yooyu yëpp dagan na ci ñoom lépp loo xam ne du wàññi seen daraja rek euh, dafa dagan na ci ñoom ndax seen bashariyatu waaye nag lépp loo xam ne dafay wàññi ci seen daraja ba duñ mën a jotal seen euh, yonant kooku yàlla jombale na ko ci ñoom lu mel ni gumba ak làggeeg yu mel noonu euh, yàlla nee na wa maa arsalna min qablaka min almursalina illa annahum la yaakuluna altaama wa yamshuna fi laswaaqi wa laqad axadna mithaqa bani israila wa arsalna ilayhim rasulan kullama jaahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadabu wa fariqan yaqtuluun dégg nga yonentu yëpp euh, yàlla def na ci ñoom bashariyatu waaye taxut ñu mel ni ñun ñooñu gën innama ana basharun mislukum yuuxa ilayya foofu la lañ wuteeg ñun alayhim salaatu salaam ab yonentu du nekk dof du am du nekk borom feebari eh, jusaam du nekk koo xam ne dafay gumba wala muy làgge bépp eh, melo wuñ koy xeebee rek yàlla du ko def ci ñoom ay yonent fa ñuy rafet fa ñuy baax fa ñuy dëgg fu ñuy hóor yàlla dafa leen dëgëralee ay mojisaat sama borom subhanahu wa bokk na ci yim ñu sant ci ñu euh, gëm ko mooy dogal lu xew rek moo xam lu neex la lu naqati la nga xam ne sama borom moo ko moo ko dogal kullu shay'in euh, inna kulla shay'in xalaqnaahu bi qadari wa indahu mafatixul xayb laa yaalamuha illa hu wa yaalamu ma fi lbarri walbaxri wa ma tasqutu min waraqatin euh, illa yaalamuha wala xabatin fi zulumaati l ardi wala rabbin wala yaabisin illa fi kitaabin mubin wama tashaauna illaa an yashaa allahu rabbul alamin waaw yonente salallahu wa alihi wa sahbihi wa sallam ñu ko jàngal ñu gëm dogal waaye mu wan ñu ni loo gëm-gëm dogale du tere nga sabablu laaraab yi ba ba mu ñëwee seeti ko yonente ne ko xanaa indiwoo waroo mu ne ko axankay ana li nga sa gëlam mu ne maa ko bàyyi ko dénk ko yàlla mu ko demal nga xeew ko te nga ko yàlla aqil wa tawakkal bi ci des muy gëm yowmal qiyaamati mooy jamono dana ñëw ñëpp jeex kullu man alayha faanin wa yabqa wajhu rabbika dul jalaali wal ikraam ba mu neex ko subhaanahu wa taala mu dekkal jaam ñi pencoog ñoom lépp loo xam ne uh, mos nañ ko def mu layoo koog ñoom subhaanahu wa taala rek la leen ko inna yowmal fasli kaana miqaatan yowma yuunfaxu fi suuri fa taatuuna awaajan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 yi nga xam ne euh, mooy ponki ngëm ci la jaam bi di euh, xamee boromam subhaanahu wa taala bu ko xamee na mu ko war a xamee xam yonent yi ni mu leen war a xamee xam malaaka yi ni mu leen war a xamee xam téere yi ni mu leen war a xamee xam dogal ni mu ko war a xamee xam bés beñ ni mu ko war a xamee te gëm ko wéral na ngëmam gannaaw su wéralee ngëmam nag borom téere bi ne summa maarifatu maa yuslihu bihi farda aynihi ka ahkaami salaat siyaami thumma maarifatu ma topp xam la nga xam ni yuslixu dana yewanale bii ci moom farda ayni farataay jëmmam ka axkaami salaati ni ka atee julli wa taharati ka atee laab wa siyaami ka atee koor jullit bi gannaaw bu ngëmam wéree war naa xam yi nga xam ni sama borom tabaraka wa taala waral na ko ci moom te kenn mën ko koo farata ñaar la farata joo xam ne farata joo xam ne su ko ñenn ñi defee mu wàcc la farata ji kenn mënta defal mooy julleeg koor laabak yu mel noonu ci la kenn mën a defal nag mooy lu mel ni julleeg néew yu ko yu ko euh, néew lépp loo xam ne ni aju na ci sag laab euh, ak loo xam ne ni soo ko bàyyee euh, sa jaamu yàlla yàqu wala ñu mbugal la ci rek farata la ci yow joo xam ne war nga ko xam ni ki faatiha ci julli ni ki fanaanoo yéene ci koor ni ki euh, raxas kanam ak ñaari tànk ci jàpp euh, sunna mooy loo xam ne luñ sopp ak euh, jëfam la su ko mu mukallaf bi defee am yool su ko bàyyee duñ ko mbugal lu mel ni xabdu ak satlu ci julli wala lu mel ni gaawee dog ak yeexe xëdd ci koor lu xaram mooy loo xam ne borom bu ko bàyyee ñu yool ko waaye su ko defee ñu mbugal ko ca wala euh, bu ko defee jullim wala jaamu yàlla am ku mën a doon mën na caa yàqu li nga xam ne su ko defee ñu mbugal ko su ko bàyyi ñu yool ko lu mel ni naan sàngara ak euh, sàcc li nga xam ne it bu ko defee non seulement danañ ko ca mbugal waaye dana yàq jaamu yàlla ja mooy lu wala bañ a jàpp ba pare dem euh, jaamu yàlla jaamu yàlla goo xam ne dafa laaj jàpp luñ sib mooy loo xam ne euh, sit nañ nga def ko sopp nga bàyyi ko soo ko defee doo ci am bàkkaar waaye soo ko bàyyee di ci am euh, tiyaabo ni ki bàyyi euh, gëmm ci julli wala ni ki dolli dara ci ak maanaam gëmm ci julli sib nañ ko boo ko bàyyee dana la ci yoon raxas gi ci war raxas ñetti yoon nga raxas lu ko ëpp sib nañ ko ci wàllu njàpp moo xam kanam la wala ya ca topp lu dagan nag mooy loo xam ne def nga ak bañ ngaa def ñoo yem euh, lu mel ni lekk euh, ak naan li am solo daal mooy lépp loo xam ne jullit bi dana ca sóobu rek moo xam lu dagan la wala luñ sib la lu xaraam la wala luy sopp la wala lu wala farata la war naa xam xatte ba ngir euh, mu xam la ko ca yàlla wax subhaanahu wa taala bu du dugg ci lu warta dugg bu xamut danañ jàngal ci kanam téere ba nee na laaj borom xam-xam yi ndax sama borom dafa wax ne fasalu ahla dikri in kuntum laa taalamuuna nee na waye jibu war naa alayhi ci mukallaf bi an yuxafida mu wattuwante ala xududillahi ci doylu yàlla yi wa yaqifa ak moomu taxaw inda amrihi fa ndigalu yàlla wa nahyi ak fa tereem jullit bi subhaana ah, jullit bi war na fexe ba mu wattuwanteeg daytal yi ko sama borom subhaanahu wa taala daytalam eh, te jaarale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa ma ataakum rasul fa xuduhu leen yonent bi indi leen jàpp leen wa ma nahaakum anhu fantahu lu mu leen tere ba leen yàlla nee na fa li xadari alladina yuxaalifuuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim ñuy wuteeg ndigalam nañu wattu fitna jot leen wala mbugal mu mag mu jógee ci yàlla subhanahu wa taala yonentu salallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam dana wax ci xadis joo xam ne mu ngi ci bazar ne man axudukum bi xijrikum maanaam ku nekk tàllal naa la euh, loxo iyaakum wa jahannam maa ngi leen di watandikoo watandikuloo jahannam iyaakum wal xadood maa ngi leen di watandikuloo tayli yàlla yi iyaakum wa jahannam maa ngi leen di watandikuloo jahannam wax na ko ñetti yoon mu ne su ma dee ma bàyyi leen di leen xaar nag ca déeg ba nekk ca aljanna muy déegu kawsar wala ca buntu aljanna képp ku ma fa fekk rek euh, texe nga yal nañu yàlla boole ci ña ko fay fekk te duñu wàññi alayhi salaatu wa alihi wa sahbihi wax na ne yàlla dana fiir te fiiraange yàlla mooy julit bi dikkee loo xam ne yàlla xaraamal na ko ci moom xadis jàng ci buxaari ak ci muslim kon jullit bi na fexe ba yi yàlla de mu respecté ko lu mu ne defal mu def lu mu ne bàyyil mu bàyyi wa yatuubu dana tuub ilallahi jëm ci yàlla subhanahu wa taala maanaam war na mu tuub jëm ci moom qabla an yasxata njëkk bay sànjat ci moom balaa yàlla di ko mere bay wàccee ci moom mbugalam wala mu koy mere bay wàccee ci moom kiiraayam te kiiraay sax mooy cosaan ci mbugal yi na tuub mu mel ni dañ ko laaj luy tuub mu ne tuub de am na ñetti yëf yoo xam ne su dajee rek tuub am na wa shurootu tawbati sartaay tuub salaasatun ñetti yëf yi la an nadamu ala faat réccu li passé ci ay giraawaale wa niyatu ak yéene allah yaawuda déet muy dolli ilaa dañ bi ñu jëm ci bàkkaar bi fii maa baq yee ci la des mun a umar yi ci dundam fexe ba euh, fas yéene ba dootoo defati dara ci bàkkaar ci li des ci sa dund mooy ñaareelu ponk ba yet an yatruk ak mu bàyyi almasiyata mooy fi saati aji saasa kaan dem nekkoon na mu tala bisandi aji làmboo bi haji mooy yàlla subhanahu wa taala jullit bi war na ci moom mu gaawtu jëm ci tuub génn ci ay bàkkaaram yëpp ndax yéexee tuub rek euh, bàkkaar la bu bokkut ak bàkkaar bi nga xam ne moom la aji bàkkaar ji def ndax sama borom dafa ne wa tuubu ila allahi jamian ayyuhal mu'minuuna la'allakum tuflihun ya ayyuha alladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudxilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yonentu ne ya ayyuha nnaasu tuubu ila allahi wastaghfiru fa inni atuubu fil yawmi mi'ata marratin man danaa tuub ci bés bi lu ma wax na ne ki tuub ci bàkkaara mel na ni euh, mosta am bàkkaara taayu mina zanbi kaman laa yu njëkk ji mu ngi ci muslim ñaareel mu ngi ci ibnu maajata ak kon euh, gaawee tuub euh, farata la joo xam ne xeet bi yëpp dajee nañ ci wax na ne charte bi ci njëkk muy réccu yonent bi dana wax ne an nadamu tawbatu ñu ngi ci ibnu xibaan réccu tuub la kon nag na réccu lim def ñaareel bi mooy na yéene ne dootul defati bàkkaar te euh, ba ca des mu sori bàkkaar ca saasa yonentu dana wax ne waylun lil musirrina alladina yusirruuna ala ma faalu hum yaalamuun buggal ñeel na way nóor yi ñiy nóor ci bàkkaar di ci continuer di ci insister te ñu xam ne li ñuy def baaxul xadis jàng ci ahmad ak buxaari yonentu sallallahu alayhi wa wax na ne al mustawfiru min adambi wa huwa muqimun alayhi kal mustahzi bi rabbihi naan lañ ci yàlla boole musal kii tuub kii kii kii jéggalu ci te ba pare sax ca bàkkaar ba muy jéggal mel ni kuy sabote boromam wax di jàng ci Abu Daawud bokk na ci tuub tamit delloo euh, xaqi nit ñi nga xam ne mi ngi ci euh, sa baat nit du wax ne tuub naa rek fekk ma nga sàccoon alalu jàmbur ba ma ngi ko leboon delloowut ko déedéet lépp xaq bu boo xam ne xaq mu def la bu ne ci yow fexeel nga delloo ko seen kem talaayu kàttan waaw yonent sallallahu alayhi mu ne alal yadi ma axadat xataa tuaddaa wala xataa loxo war na ko la la mu téye la mu jël feeg delloowut ko nee na walaa yaxillu lahu daganul ci moom an yu axira tawbata muy yéexee tuub walaa yaqulu du wax xataa yahdiya nii damay xaar ba jubal ma laahu yàlla fa innahu naka wax loolu min alaamati shaqaay bokk na ci mandargaay texee di wal xislaani ak géej moo tam si basirati ak far gis ci sob xol sama borom dana wax ne bët du gumba waaye xol mooy gumba fa innaha laa taamal absaaru walakin taamal qulubu allati fi sudóor képp koo xam ne mi ngi naan damay toog rek ba sama borom jubal ma mu jub li muy wane rek mooy kooku eh, texee di nar na koo ñaan waaye gisam ci li nga xam ne mooy gis-gisu xol far na ndax bàkkaar yu bari dafay far gis-gisu xol sama borom ne eh, xol mooy gumba waaye bët yi rek du gumba yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne innal mu'mina ida aznaba zanban kaana nukta sawda fi qalbihi فإن تاب ونزع واستغفر سقل منها وإن زاد زادت حتى تعلق بها قلبه فذلك الران نعم حتى تغلق بها قلبه فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama su jaam bi di def bàkkaar dafay nekk benn tomb bu ñuul ci xolam su tuubee eh, tomb ba daal daal di nocceeku jëm ci bàkkaar maanaam jógee ci bàkkaar su tuubee daal di bàyyi bàkkaar muy nocceeku walis bàkkaar eh, daal di jéggalu ñu fomp ko ba mu leeraat na mu meloon su continuer di dolli bàkkaar nag tomb yooyu dolleeku rek ba xol ba tëju mu ne loolu mooy raanu bi yàlla di wax ci suratul mutaffifina kallaa bal raana ala quluubihim maa kaanu yaksibuun bu ko defee loolu mooy muur xol bi ba dootul eh, gisati boromam ci xolam kallaa innahum an rabbihim yawma idin ñaari laay yi ñu ngi ci euh, mutaffifin xadis bi ci tirmi tirmisi yu euh, imaam tirmisi imaam nasaay wéral na xadis ji nee na wa yajibu dana war ci mukallaf bi xifdu lisaanihi wattu làmmiñam min al ci ñaawteef wax ju ñaaw wal munkari ak luñ bañ luñ sib luñ fakk wal kalaami ak wax alxabi yaajiboon waaye maa ne talaaxi ak ngañal fase wantihaar muslimi ak gëdd julli wa ihanatihi ak doydal jullit wa sabbihi ak ŋàññub jullit wa taxwi fii ak ragalloo ab jullit fii gayri xaqin ci loolu xaq shariin day ko jub yoon wa yajib dana war alayhi ci moom xebu basarihi wa tujisa min a ci xool dal xaraami jëm ci lu xaraam wala xilu di dagan la woon ñeel ko ay yàmboro muy ilaa muslimin jëm ci jullit bi nazaratin ci xool tuudihi boobu dana ko lor illaa an yakuna dara mu nekk faasixan dib kàccoor am na ci nusxa nusxa nusax yu def faajiran muy kàccoor ba tey fu yujib dafay war kon dong ko maanaam jullit lépp lu muy euh, wax rek na ko euh, seet ndax sama borom dafa ne inna allaha yaamurukum euh, inna allaha yaamuru bil adli wal ihsaani wa iitaai dil qurba wa yanhaa anil fahshaai wal munkari wal bagyi yaidukum laallakum tadakkaruun yàlla digal na màndu ak rafetal ak jox jege ñaale waaye tere na it lu ñaaw ak lépp luñ sib ak mbew yàlla ngi di waar ndax ngeen waaru subhaanahu yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na inna charra annaasi manzilatan inda allahi yowma alqiyamati man tarakahu nnaasu ittiqaa fuxshihi nee na ki yées euh, wàccuwaay yowma alqiyamati ca yàlla mooy koo xam ne nit ñi dañ ko bàyyi ngir ragal làmmiñam bu ñaaw yonent dana wax ne laysa almuminu bi taani wala laani wala alfaaxishi wala albahi ab jullit du dëbbaakoon du rëbbaakoon du koo xam ne dafa ñaaw làmmiñ euh, xadis ju njëkk jëm ci muslim bi ñu wax ni léegi mi ngi ci Tirmidi yonentu dana wax ci xadis ji muy dénkee Muaaz ne ndax am na lu mën a këpp nit ñi safara loolu euh, euh, seen ngóobitu làmmiñ euh, yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi wax ni saaga ab jullit ak kàccoor la rayanteeg moom wala xeex ak moom kéefeer la yonentu sallallahu alayhi wa dana wax ne daganul ci ab jullit muy tiital jullit mooy mu delluwaat ci ragalloo gi ñu waxoon noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, tamit jàngal nañu euh, gannaaw bu ñu alxuraan jàngale ne suñuy gët ak suñuy xool euh, war nañ ko gëmmu walis lépp loo xam ne sama borom daf ko xaraamal yàlla wax na ci suratul nuur qul lil muminina yaxuddu min absaarihim wa yaxfadu furujahum wax na it ci suratul israa inna sama wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu masula wax na ci suratul xaafir ne yaalamu xaainata l ayuni wa ma tuxfi sudur aay yu njëkk ji ne waxal jullit yi nañu gëmmu seen bët yi te wattu seen pëy yi maanaam buñ xool lu xaraam buñ def lu xaraam wax na it ci suratul Israa ne dégg ak bët maanaa dégg ak gis ak xol ku nekk rek yàlla dana la taxawal yawmal qiyaamati laaj la xam na ajuwari ji bët ak la dañuy di nëbb wax na moom suñu euh, yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne ñetti bët saxara du leen lekk yawmal qiyaamati bët boo xam ne dañ ko gëmmoo ba xoolut li xara li yàlla xaraamal ak bët boo xam ne dafa jooy ngir ragal yàlla ak bët boo xam ne mi ngi fanaan di garder eh, frontière wala leneen ko mën a tuddee eh, ci ci ci ci lu concerné jullit yi ci yoonu yàlla talaatatu ayunin laa taakuluha talaatatu eh, ayunin laa taakuluha naaru yowma alqiyamati wa talaatu ayun aynun guddat an maxaarimillahi wa aynun bakat min xashiyatillahi wa aynun baatat taxrusu fi sabilillahi ni nga xamee ne euh, jullit bi euh, daganul ci moom muy def yii nii daganul ci moom it muy euh, xool mbokkam jullitam xool boo xam ne daf koy lor loolu nag muy koo xam ne dafay def ak ñaawteef te di ko béral nëbbu ca dara te yow mënoo ko waar amoo autorité yi boo ko mën a puniree bu ko defee nga lu ko te téye sa bopp waaw yàlla nee na walaa tarkanu ilal ladina zalamu fa tamassakumu naaru bu leen jeng jëm ci tooñkat yi ndax kon safara daf leen di laal allah yi jàng ci suratu Hud yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax na xadis joo xam ne mi ci ibnu Maaja te ne laa tusaaxib illaa muminan wala yaqul taamaka illaa taqiyun wala ànd ak ku dul ab eh, jullit koo xam ne ku dul aji lekk it ko bàyyee ku dul koo xam ne ku baax ku ragal yàlla la dana wax ne laa yuxibu rajulun qawman illaa xushira maahum aw nit du ah, bëgg ah, aw nit lu dul ne ñu fang ko bu yamal xiyaamate mu ànd ak ñoom xadis yaa ngi ci tabaraani mu ne wéy ji war na ali ci mukallaf xifdu jamii jawaarihi eh, wattu mboolem ay cëram jamii xifdu jamii jawaarihi mastataa kem kàttanam rek wa an yuhibba ak muy bëgg lillaahi ngir yàlla wa yabgada muy bañ la ngir yàlla wa yarda wa yarda muy kontaan la ngir yàlla wa yarda ba muy maag la ngir yàlla wa yamur muy digale bil maaruf yi ci mbaax moom lañ xam wayen xaar te muy tere ànd mu koy ci loo xam ne dafa bon jullit bi war naa fexe wattu euh, cëram yi kem talaayu kàttanam moo xam déggam la moo xam gisam la moo xam xolam la yonentu sallallahu alayhi wa sallam dana wax ne doomu aadama bind nañ ci moom cëra njaalawoo te aji jot la ko laa ma xaalata waaye ñaari bët danañ njaaloo seen njaaloo mooy xool ñaari noppi di njaaloo seen njaaloo mooy déglu làmmiñ di njaaloo njaaloo mooy wax euh, loxo di njaaloo njaaloo mooy laal tànk di njaaloo njaaloo mooy dox jëm ci lu xaram xol di bëgg def loo xam ne ni jaaduwut mooy njaaloo euh, di ak di ko mébét ki koy dëggal nag mooy pay mi wala mu weddi ko moo tax loo sa cër bëgg-bëgg fexeel ba fegu te noo gën a bàyyee cër yi rek pay mi gën a euh, topp li nga xam ne moom la cër yi bëgg xadis yaa ngi ci Buxaari ak euh, muslim kon ñu bàyyi ci xel yonentu sallallahu alayhi wa sallam digal ne ni yàlla digale subhanahu wa taala ne kuy bëgg na fekk yàllaay tax kuy bañ na fekk yàllaay tax kuy méngoo na fekk yàlla moo tax nga méngoo moo ko yonantam innama waliyukum allahu wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raakiuuna wa man yatawalla allaha wa rasulahu walladina amanu fa inna xisba allahi hum alxaalibuna laa tajidu qawman yuminuuna billahi wal yawmi al axiri yuwaadduuna man xaadda allaha wa rasulahu walaw kaanu abaahum aw abnaahum aw ixwaanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al imaana wa ayyadahum bi ruuxi min yonent bi sallallahu alayhi wax na ne gën a dëgër ci buumi ngëm yi mooy méngoo te yàlla tax ak noonoo te yàlla tax ak bëgg te yàlla tax ak bañ te yàlla tax xadis jàng ci Tabarani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe te yàlla tax tere te yàlla tax bëgg te yàlla tax bañ te yàlla tax sëyalaw te yàlla tax maanaam maye sa doom te yàlla tax xamal ne ku def loolu matal na ak ngëmam xadis ji mi ngi ci Ahmadu ak Tirmidi kon nag yooyu ñu ci xel naka noonu digale lu baax ak tere lu bon farataay eh, ñëpp la waaye ku nekk ak sa kemtalaayu kàttan bu ñu ne farataay ñëpp loo mooy ñëpp ñoo xam ne xam nañ ko xamut balaa digale dafa war a jàng ba ba pare moo tax sama borom ne ah, kuré ci yéen war nañoo def loolu wal takun minkum ummatun yad'uuna ilal xayri wa ya'muruuna bil ma'ruufi wa yanhawna 'anil munkari wa ulaa'ika humul muflihuuna kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi ta'muruuna bil ma'ruufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuuna billah yonent sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis joo xam ne mi ngi ci Tirmidi yu ne maa ngi gën ci buur bi nga xam ne sama euh, bakkanam ci loxoom da ngeen digle mbaax tere mbon wala xëy na yàlla yónni ci yéen mbugal moo xam ne da ngeen ñaan pour yàlla dindi ko te yàlla du leen wuyu nañu yàlla boole musal ci loolu nee na képp koo xam ne gis nga mbon na ko jéem a soppi ci sa loxo soo ko mën nga soppee ko sa làmmiñ soo ko mën nga soppee ko sa xol mooy nga naqarlu ko te loolu mooy li gën a lompañ ci ngëm xadis muslim ak tirmidi nee na way xarumu alayhi kadib fenn dafay xaram ci euh, mukallaf yi wal xibatu ak jëw wal namimatu ak rambaaj wal kibra ak rëy wal ujbu ak haaw wal riyaaw ak ngistal wal sumaatu ak ndéggatal wal xasadu ak xañaan wal buxdu ak euh, ak mbañal wal fadli ak gis ngëneel alal xayri maanaam nga gis ne yàgg na alal xayri keneen àllxëy ci keneen wal hamzu ak piis wal lamzu ak regeju ñu ne hamzu mooy regeju lamzu mooy piis ñaar yëpp euh, wute nañ ci seen firi wala abas ak fo wa suxriyatu ak reetaan mooy di yëjji euh, koo xam ne nii euh, duut yaw maanaam keneen ku dut yow fen sama borom wax na ci alxuraan ne ñi gëmul yàlla rek ñooy fen yi ne waa yaxtaril kadiba alladina laa yu'minuuna bi ayaatillaahi wax na itamit ci suratul israa yi ne bul taxaw ci le bul xeeñcu wala topp lenn loo xam ne xamula ko ilmu yonentu sallallahu alayhi maa ngi leen di wattandikuloo fen ndax fen dafay yóbbu nit yóbbu nit safara jaam bi du dañ di fen di fen ba ba ñu bind ko ca yàlla ne kii fenkat la euh, xadis jaam ci buxaari ak euh, muslim euh, fen nag dafa xaraam su fekkee ne neen la walla jël xaq yi koo xam ne ni xaqam kenn waru koo jël waaye léeg-léeg mu war nit ki boo gisee kuñ tooñ bëgg ko ah, rey te mënoo ko dimbalee nga fen ne gisuloo ko buñ la buñ la ko laajee wala sax jullit yi di taseeg eh, yéeféer yi eh, te nga bëgg ragalloo yéeféer yi nga wan leneen ne jullit am nañ arme bu dëgër kooku luñ sopp la eh, naka noonu fen dana nekk lu dagan su fekkee ne xéwénal diggante nit ñi la dana nekk lu ñu sib mooy lu mel ni fen sa jabar ci loo xam ne duur luy yàq jëw mooy nga waxal sa mbokk loo xam ne su ko déggoon sib ko bu dee sax lu am la ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa eh, jàngale su fekkee ne lu amut yonent mu ne danga ko sosal xatee jàng ci muslim ak abu daawud alquran wax na ci suratul xujuraat ne bu kenn ci yéen jëw kenn ndax kii jëw mel na ni mu ngi lekk mbokkam ay yuhibbu ahadukum an yaakula laxma axiihi maytan fa karihtumoo du ngeen ko bëgg kon nag na ngeen ragal yàlla inna allaha tawwaabu rahim wattaqullaha inna allaha tawwaabu rahim yonent sal salaam mu ne bépp jullit xaraam na ci moom deretu jullit ni moom dere ak deram ak alalam xadis am ji Buxaari ak euh, muslim waaye bu fekkee ak kàccoor la nëbbut la muy def nag nga tudd la muy def ngir moytul loo ko jullit yi du nekk jëw waaye doo ko tudd ngir ne yow da ngaa baax moom dafa bon wala ngir ne danga nga koo bëgg a tudd rek loolu dafay dafay mujj nekk beneen euh, bakka yonentu mu ne man alqaajil baabal xayaay an wajhihi falaa xibata lahu xadis ji ibnu adi génne na ko jëlee ci anas yonentu salallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wax na ne tamit atraana an dikri atraana an dikri lfajiri hattikuhu xata yarifahu naasu wadkuruhu bima fihi xata yaxdarahu naasu rambaaj nag mooy siiwal mbóot moo xam ne ki ki ki koy siiwal jógee ci moom wala kan koy siiwal jëlee ci moom wala keneen ku dul ñoom sib na mbóot moomu ñu xam ko loolay rambaaj yonentu wax na ne rambaaj du dugg aljanna sama borom ne wala tuti kulla xallaabin mahiinin hammazin mashaain binamimin mannaain lil xayri muctadin ahimin ci suratul qalami wa yaxrumu alayhi lkibru rëy wa riyaaw ak ngissal wa sumaat ak ndéggatu wal xasad ak kañaan wal nag mooy bakkaar bi nga xam ne daanaka moo gën a ci bakkaar ndax bakkaar yu bëri mën nga koo fekk doo kenn waaye kibru moom balaa ko borom mën a def rek fokk mu suufeel keneen te sama borom nee na ñi nga xam ne rëy nañ duñ leen ubbil bunti asamaan yi duñ dugg aljanna it fekk gënam dugg ci bon wanu puusa ni mu ko waxee ci suratul Araf hadis ji ne eh, képp koo xam ne eh, maanaam ku koo xam ne lu toll ni pepp dara mi ngi ci yow ci rëy doo dugg aljanna eh, xaaw nag mooy gis ne rew rek baax nga yonent sallallahu alayhi wasallam mu ne bu ngeen doonu doon bàkkaar danaa ragal ci yoon lu gën a garaaw bàkkaar te mooy xaaw mooy gis ne baax nga al gis eh, ngistalu ak ndéggatal nag ñaar la ngistalu mooy di def dara eh, ngir nit ñi walla ngir yàlla ak nit ñi boobu mooy ngistalu lixlaas am na tamit Euh, ngistal boo xam ne maanaam bu njëkk bi mooy ngistalu lixlaas euh, bu ñaareel bi mooy ngistalu euh, shirk maanaam ñu def dara ngir nu mu tuddati def dara te jubloo ca yàlla wala nga def dara jubloo ci yàlla ak nit ñi boobu moom dangaa boole yàlla ak la nit ñi ci li ngay jëf déggatalu nag mën ngaa def dara sax te yàlla tax gaa waaye gannaaw nga koy wax nit ñi ngir bëgg am dara yi ci seen kanam yàlla mu ne fa waylun lil musallin alladina hum an salaatihim saahuun alladina hum yuraaun yonentu salaai sallam ne man samma samma allahu bi wa man yuraa yuraa illahu bi képp koo xam ne mi ngi defar mi ngi def jëf di ko wan nit ñi eh, ngir ga ngisal mbaa mu koy wax nit ñi ngir ñu eh, dégg ko xam ne moom ku baax la wala jàpp ne moom ku baax la bu yowmal xiyaamee yàlla dana wane eh, yéeneem bu bon dana ko déggloo it nit ñi kañaan nag ak mbañeel kañaan mooy Euh, nga yéene ci sa xol xéwal gi nga xam ne sa mbokk jullit wala sa mbokk bu dul sax jullit am na ko mu dëñ bu dee sax du ñëw ci yow boobooy bi ci gën a bon beneen bi mooy nga yéene mu dëñ ñëw ci yow ñaar yëpp yu bon la euh, mbañeel nag moom dafa mooy jur mooy yéene gi nga yéene euh, lor wàcc ci keneen ku dul yow ki wàcc ci nit ki yàlla mu ne naa yaxsudun naasa ala ma ataahum min fadli wa min sharri xaasidin idaa xasad wa laa tatamannaw maa fadala allaahu bihi baadakum alaa baad wa nazana maa fi sudurihim min xillin ixwaana alaa sururin mutaqaabilin bokk na ci li tax aljana neex mooy mbañal amul fa añaan amu fa yonentu sallallahu alayhi wa sallam tere nañu añaan ca xadisam ju gudd jëm ne wala taxaasadu ñu bàyyi ci xel am na loo xam ne arab dina ko tuddee añaan xasad fekk ribta la ci jublu mooy ak ñeete yonentu mu ne loolu dagan na nga gis koo xam ne am na ak mbaax nga yéene am mbaax googu te moom du ko ñàkk ngir nga mën a def lu baax lam cay def lu mel ni koo xam ne ni yàlla jox na ko alxuraan mu cay eh, jaamu yàlla guddeeg bëccëg ak koo xam ne yàlla jox na ko alal mu koy dépassé ngir yàlla guddeeg bëccëg hadis ji eh, mi ngi mi ngi ci muslim maanaam rek lañ wax eh, gis ne yaa gën keneen kooku sunaay iblis la ana xayrun minhu yonentu mu ne falaatu zakku anfusakum huwa alamu bi man ittaqa bu leen sellal seen bopp yàlla gën a xam ku ragal yàlla maanaam alquran moo ko wax ngeen baal ma yàlla moo wax ci alquran ci suratu najm fala tuzakku fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bi man ittaqa hamz ak lamz lamz nag mu wax piis ak regaju eh, dañ ko ko firee waaye li wér rek mooy mooy ëybal nit ak ak di feeñal ay yàqu-yàqam wala ay awraam eh, dégg nga moo xam ñu ne fa wala newuñ fa nga koy defee say cër wala noo ko mënta defee yàlla xas na ñu mel noonu wala tutea kulla xallaafin mahiinin hammaazin wax ne waylun li kulli humazatin lumasa yonentu sallallaahu alayhi wa sallam ne alhammaazuuna wallammaazuuna walmashshaa'uuna binnamiimati albaa'uuna lil uraa'i la'ib yaxshuruhum llaahu fi wujuuhil xilaaf ñi nga xam ne lii mooy seen jikko mu ne yàlla bu yomal xiyaame bu leen di eh, pang daf leen di pang ci melow eh, ci ci ci ñu yore kanami xaj yal nañu ci yàlla boole musal fo nag eh, mooy lépp loo xam ne nit dañ cee nekk te la ko njëriñ alquran wax nañu ne te xasibtum annamaa xalaqnaakum abathan ndax da naa defee ne dañ laa bind ngir fo nit dañ ko bind ngir jaamu yàlla wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'budun maa uriidu minhum min rizqin wa maa uriidu an yut'imuun foo yonentu sallallaahu alayhi wa sallam ne yëpp neen la ba des ñett mooy foog sa jaba ak euh, di euh, yar sa fas di foog moom ak tamit yore fett muy lu mel ni euh, training ci wàllu fet loolu yonentu sallallahu alayhi wasallam boole na ko ci foo yi nga xam ne ay dëgg lañ euh, reetaan wala suxriya mooy ejj yàlla tere na ko suratul xujuraat laa yasxar xawm min xawm ki nga foog ne yaa ko gën ba koy ejji xëy na moo la gën même su fekkoon ne yaa ko gën it soxloo ja euh, xeeb gi nga ko xeeb rek yonentu sallallahu alayhi wasallam mu ne doy na la xay bi xasabi mriin min acharri an yaxqira axaahu an yaxqira axaahu l muslima kullu l muslimi ala l muslimi xaraamun damuhu wa irduhu wa maaluhu xadis ji mi ngi ci muslim ak muslim nee na wa yaxrumu alayhi zina wa nadaru ila al ajnabiyati wa talazuzu bi kalaamiha mel na ni gére ngi jot waaye ñu gaawantu yeggali eh, bunt bi wa yaxrumu dana xaraam alayhi ci moom azina njaalo wa nadaru ak xool ila al ajnabiyati jëm ci jàmbur bu jigéen wa talazuzu ak bànneex bi kalaamiha ci waxam wa akul amwaali naasi ak lekk xalal nit ñi bi xeyri tibi nafsi ci lu du teegu bakkan wala akul ak lekk bi shafaati ci tino aw bi diine wala ci diine taxilu salaat ak yéexee julli an awqaatiha walis waxtu wala yaxillu daganut la ko ñeel ko suxbatu vaasixin àndaaleeg kàccoor wala mu jaalasatoo di caageen toogaaleeg moom li gayri daruratin lu ci lu lor wala loolu du sàkku ridal maxlu ridal xalqi ngërmaan day bindee fi fii maa yusxitul ci loo xam ne dafay merloo aji bind ji njaaloo ak xool jàmbur bu jigéen di bànneexu ci waxam sama borom xaraamal na ko ndax wala taqrabu zina la bu leen jege njaaloo te wax na ni yaalamu xaa'inata al-a'yun wa maa tuxfi sudur yonent bi sallallahu wa sallam ni ko waxee ci xadis ji jiitu ja ne cër yi doomu aadama yi bu ci nekk uh, mu tudd na muy njaalewee mu ne waaye pëy maa koy dëggal mbaa mu fenn ko lekk xalal nit ñi ci lu teew bakkan moo xam uh, nga lekk ko te fekk da nga koo këf wala nga lekk ko ci wàllu riba wala ci ak nger yooyu yëpp dafay dugg ci ak lu am wàllu naas bi xayri tibi nafsin yonent sallallahu alalu as yoo xam ne jullit la ci lu dëgg dana taseeg yàlla fekk yàlla nga ko mere terewul tamit bu fekkee ne euh, taxul ñu déggee ci ne bu dee du jullit bu dee du jullit tamit euh, yàlla daganalul nga jël euh, alal joo xam ne du alalu ku du jullit lu dul ci yoon yi nga xam ne lu ko sharia daganale lekk ci tinu nag mooy fekk koo xam ne dañoo jël alalam nga ne ko boo ma ci neexalee dara ma dem fexe ba ki ko jël delloo la ko wala yu mel noonu Euh, lekk ci diine diine lu mu mooy di wa feeñal ak ragal yàlla ak jub di kaalawoo ko dammi baat ngir nit ñi foog ne ku baax nga ba nga leen ba di la jox li nga xam ne eh, mooy seen alal ngir yaakaar gi yaakaar am ci eh, yaakaar gi ñu yaakaar ci yow ak diina te fekk yow ak diina daanaka yoroo ca dara soo ko yorowoon it diina du commerce fa xalafa min baadihim xalfun warithu lkitaaba yaaxuduuna arda haada l-adnaa wa yaquluuna sa yughfaru lana wa in yaatihim aradun misluhu yaaxuduhu alam yuqad alayhim mithaaqul kitaabi an laa yaqulu ala allahi illa alxaq wa darasuu maa fiihi wa daaru laaxiratu xayrun lilladina yattaquun afalaa taqilun ndax laay ji yàlla ngi ciy leeral lool ci suratul araaf mu ne wa yaxrumu dana xaraam alayhi ci moom taxiru salaati yi yéexee julli an awqaati awli waxtu ya wala xilu dagan la ñeel ko soxbatu faasiqin àndaaleeb kàccoor wala mu jaalisa tuuti caageen toogaaleeg moom li xëytu daruratin ci lu dul lor wala yellubu du sàkku ridal maxluqiina Euh, ngërmandeeg ñuñ bind ñi bi suxtil xaaliqi ci sànjeeg aji bind ji qaala allahu yàlla wax na subhaanahu wa taala wallahu wa rasuluhu yàlla ko yonantam a xaqu an yurduhu ñoo gën a yeewe ñu gërëm loo leen ñu gërëm loo leen waaye mu def ñu gërëm loo ko ndax gërëm loo yàlla mooy gërëm loo yonantu in ka aana dem nekk nañ muminin di way gëm mooy jullit du yéexee euh, waxtu ndax sama borom xas na ñi nga xam ne dañuy yéexe waxtu alladina a saawoona borom xam-xam yi wax ne mooy ñu koy yéexee walis euh, waxtum yonentu sallallahu alayhi wa sallam dana wax ci xadis joo xam ne mu ngi ci xakim ne ku boole ñaari julli ci lu ngànt dana dajeeg yàlla maanaam dikkee na bunt ci bunti bàkkaar yu mag man jamaa bayna salaatayni min gayri udrin faqad ata baaban min abwaabil euh, kabaa'iri naka noonu tamit li ñu waxoon ci ab xàccoor euh, toogaaleeg moom ngant rek ko war a waral niki bokk ak moom euh, oto wala bokk ak moom barab boo xam ne da ngeen faa daje am lu ngeen di lijjanti mënu leen ko bañ a bokk euh, waaye àndaaleeg moom nag sama borom tere na ko wala tarkanu ila alladina awalamu fa tamassakumu naar yonentu mu ne ku nekk mi ngi ci diine xaritam ku nekk ci yenn xool ka muy àndandoo wax na ne bul ànd ku dut ab euh, jullit sa ñam bu lu dut ku ragal yàlla subhanahu wa taala lu ne it boo koy def seetal ndax gërëm loo na yàlla ko yonentu bu seet lu gërëm loolu nit ñi ba tax ngay merloo yàlla subhanahu wa taala yonoon dana wax ne laa taata li maxluqin fi maasiyati alxaaliq wala yaxillu lahu an yafaala filan xata yalama allah xata yalama xukma allahi fihi daganul tamit muy def jënn jëf fekk xamut la ca yàlla atte lépp looy def na nga xam atte yàlla ca jëf jooju soo ko xamut mu ne wa yasal ak na laaj al ulama wala wa yasalu dana laaj al ulama borom xam-xam wa yaqtadi dana roy bil muttabiina ci way topp yi li sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñi topp sunna yonent sallallahu alayhi wa sallam alladina ñi nga xam ne yadulluuna ala taatillahi dañuy tegtalee topp yàlla wayu xawdiroona ñuy watandikuloo min ittibaai cheytaani euh, topp cheytaane waaw laaj boroom xam-xam yi boo xamul fasalu ahla dikri in kuntum laa taalamuuna loolu la suñu boroom wax subhaanahu wa taala euh, wala yarda du gërëm li nafsi yi ñeel boppam maa radiyahu la gërëm na ko almuflisuuna euh, way falas laya Eh, alladina ñi nga xam ne daat sànku na amaaruhum seen dund fi gayri taatillahi ci lu topp yàlla taala mu kawe mi taala kawe na fa yaa xasratahum woonaa perte seen wa yaqula bukaihim woonaa yàggub jooy seen yowma alqiyaamati bés penc nasalullah ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala an yuwafiqana mu defale ñu litibaaci sunnati nabiyina ci topp sunna yi suñu yonantu wa xabibina ak suñu soppeeku sayidina ak suñu sang muhammadin muhammad salallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mu ne bu mu gërëmal boppam li nga xam ne way daanu yi gërëmal nañ ko seen bopp almuflis ci commerce mooy ku daanu yonentu laaj na bés euh, saxaaba yi ndax xam ngeen kan mooy euh, ku daanu ñu ne ko ku daanu mooy koo xam ne amatul bagage amatul amatul dërëm amatul bagage mu ne ki daanu ci sama xeet yi nag mooy ku yor indi euh, julli yomal am indi fa koor indi fa asaka ay fekk saaga na kii lekk na alal kii tuur na deretu kii dóor na kii ñu jël ci ay mbaaxam jox ko kii ay mbaaxam jox kële bu mbaaxam yi jeexe fekk lam leen yoreel jeexut ñu jël ay ñaawteefam euh, jox ko ko sànni ko ko daal di ko sànni ci safara mu ne fa haada wal muflisu kii mooy kii bankrupt ci sama xeet ñu ci yàlla boole musal xadis jàng ci euh, muslim ñu ñaan suñu borom boole ñu ci ñi nga xam ne danañ dégg euh, te topp nam gën a rafetee ci barke yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallallahu ala sayidina muhammadin alfatixi alxaatimi nasir alhaadi wa ala alihi xaq qadri wa miqdaari wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu